mbokk yi salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a seen site internet bi di 24 actu comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk rek ci seen euh, émission bi ñu duppee invité de la rédaction invité de la rédaction nag kenn ku nekk xam na ko kenn ku nekk ràññee na ko ci biir site bi di 24 actu tey nag euh, jàpp naa ne suñu gan bu ngeen ko gisee kenn dootu ko présenté ci même réew rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba waaye tamit rawatina ci diwaanu Lindi bi nga xam ne fi la féete euh, di responsable politique bu mag nekkee ci APR di Moustapha Seck maa woo xam na nag donte am nañu ko xam mais laata ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo Moustapha Seck maa ngi lay nuyu. Eh, jërëjëf euh, soxna Sylla sa maa ngi lay nuyu di nuyu waa 24 actu yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziare di jox seen wàccuwaay jërëjëf. Euh, jërëjëf euh, Moustapha ci nuyoo bu am solo boobee comme nañ leen ko junjee woon sànq rek ci bopp jotaay bi Moustapha Seck Mao nekk tamit responsable politique bu mag fii te tamit ci diwaanu Ndindi tamit nekkee ci parti politique bi di APR xam naa euh, suñu gan buñ bëggoon xam exact donte am na ñoo xamante ni sax ràññee nañ kan mooy Moustapha Seck Mao mais ñi nga xamante ni xamuñu la Moustapha kan mooy Moustapha Seck Mao. Moustapha la. dëkk Touba juddoo Kaolack maa ngi yaroo Touba nag fi laa màggee fi laa jànge donc euh, fi laa defe sama lépp nekk opérateur économique di dem ci yenn réew yi di uti ay bagages ak a ñëw euh, di yëngu ci politique di jàppale président Macky Sall donc loolu pour mu gàtt rek ma tënkal la ko noonu Euh, pour mu gàtt nga tënkal ñu ko noonu waaye tamit ñu bëgg tamit nga dikkaatal ñu Moustapha ci sa parcours ci politique. sam parcours donc njëkk naa jaar PDS ànd ak kuñ naan ab Lahad Seck bi nekk Soura dama koy wax lu bëree bëri ànd ak moom ba côté 2011 lañ ma présenté Macky Sall benn kilifa présenté ñu ñu ànd. Mm-hmm. depuis 2011 di liggéey. Mm-hmm. ba ndëgg ni si ñi ngi ànd di liggéey. mais dégg nañ nga ne PDS nga njëkk a démarré avant ngay ñëw APR est-ce que mën nañoo xam exact lan moo la jëlee PDS ba yóbbu la ci parti bi di APR. non boobu dafa amoon ku ma doon jàppale taxutoon ma branché bu baax ci politique mais dafa amoon ku ma doon jàppale ko corner muy Abdou Lahad Seck bi nekk sura di nijaay donc ñu bari xam nañ ko bokkul ak Abdou Lahad Sadag mm-hmm. mais même famille bi la. Mm-hmm. donc moom laa doon jàppale moo jiite woon sura gerte côté yooyu yëpp moo ko jiite woon ci PDS ci section yi amoon jamono boobu. Mm-hmm. ma ko doon coordonné bi ñu demee nag ba eh, àgg côté 2011 nag ci la ma benn kilifa ku mag gis ne ma nag eh, sa taxawaay ci politique ak ni li nit ñu uysee yar bi teggin gi vraiment su ma sañoon da nga ñëw ànd ak président Macky Sall taxutoon ma xam ne wax dëgg yàlla am taxutoon sax booba ma kii woon mais terewul rek ma dégg ndigal it ànd ak moom. Eh, waaye wax dëgg yàlla amit Macky Sall it ku jar a àndal la. mais taxul tamit euh, bi nga jógee PDS dem APR euh, est-ce taxul ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon biir APR waxuñu la dara comme ndax da leen doon jàppale ba ci digg ba nga jóge fa dem APR est-ce que amul yenn kàddu yoo xamante doon ko ko dégg bi nga jugee ci parti bi dem ci bee. non xam nga moom boo jugee fii dem fële du leen neex mais tamit booba noonu rek la mënoon doon demee. te xëy na boobu tur yu ma waroon a am ci politique dëgg aw ma ko ci woon am na ñu bëri ñu nekkoon PDS xamuñ ma woon parce que sama nijaay lañ xamoon. léegi demee boo ci ngay gën a fësee. léegi nag ma ne naa dem fee nag pour ànd ak moom jàppale ko léegi nag bi ñu demee nag ma ànd ak imam Sall mii ak euh, kuñ naan sëñ Xaadim Mbàkke doomi Baay Seex Ibrahima sëñ Fàllu la ak sëñ Maamun Ñang ñu àndoon ñëpp boolewu doon wër àll bi yëpp nga xam ne Ndindi Tuubaa bëgg ak fépp jamono booba ñun secteur bi rek lañ yoroon yàlla def it ñu am ci ndam ci 2012 bi noonu la kii woon. Euh, jërëjëf euh, Moustapha ci leeral yu am solo yooyu mais tamit ñu bëgg Moustapha nga dikkaat ñu ci tolluwaayu politique bi ci département bi. département bi de moom moom est-ce que politique am na fi fi mu toll nii politique moom amu fi. Mm-hmm. ndax gis naa ne nit ñi talatuñ ko sax. Mm-hmm. ndax jafe-jafe yi am ci réew mi. Mm-hmm. li ñuy tuddee mbas mi muy corona bi. donc euh, waxuma la waaye lépp la baar du politique képp la baare donc mbas mi nag nekk loo xam ne suñu borom moo ko fi wàcce mu doon ay jafe-jafe yu méttee métti yoo xam ne donc ñëpp a koy souffrir. Mm-hmm. vraiment ñaan yàlla rek euh, yàlla jële ko fekk jàmm ak salaam. Mm-hmm. mu mu mu mu fekk jàmm ak salaam. Mm-hmm. beneen bi nag métti na pour euh, ci population bi. ndax vraiment léeg-léeg damay toog fii gis nit ñëw gàddu soowam di la wax ay fani fan yoo xam ne demul marché toggul. day seet ñu koy ñu ko lu muy lekk wala lu koy jàppalee rek ak ak njabootam. te pourtant ci kanam amoon na ko ndax borom këram alors ma nga doon liggéeye ba Kédougou wala feneen. Mm-hmm. mais ñëwoon na fi mënta delluwaat. Mm-hmm. te amul ci dëkk bi liggéey te loolu daf fee bari trop. Mm-hmm. vraiment ñu baara leen ci dëkk bi. demuñu dikkuñu. donc mu metti lool loolu ñooñu ñoo ci gën a metti le vraiment nga xam ne man mi nekk fii nekk homme politique donc nit ñi di ma yaakaar di ñëw di ma indil ay ordonnance ak yeneen ak yeneen yooyu loolu moo gën a métti téeméeri ju ñu yoon moo gën a métti parce que xëy war a dundal sa njaboot. mburu moo leen jox ñuy ndékk sax amoo ko doy na waar loo leen jox ñu lekk añ amoo ko reer kazalik da ngay dafa métti trop tellement ba nga xam ne maar dem si donc nag loolu vraiment xam naa ne ñu ngi bëgg daal état bi gersu nit ñi ndax ni ñu doxalee dund bi kenn du ne baaxul waaye nag mënoon naa gën a baax ndax yéex na trop yéex na donc ci e, ba mu commencé ba léegi bañ président defee déclaration ba léegi si vraiment yéex na xam naa Moustapha doguñu la mais côté dund boobu nga wax sax ak lu ci mel ni mbas mi nga xamante ne moo lëmbee àdduna bi xam naa dinañ ci gën a desiwaat mais tamit ñu gis ne lu yàggul dara gis nañ leen ngeen di jàmbat yow ku ne xam na ne ko xam Moustapha xam ne ay jigéen ak ay góor ñu bari ñu takkuñ ñu ngi topp ci ginnaawam surtout parti bii nga nekk di APR ñu gis ne lu yàggul dara yéen a ngi jàmbat lu mel ne ay côté Kéré Mbaye Kéré Ndaw lu mel ni ay wàllu yoon ak yu mel noonu est-ce que boobaak léegi fan ngeen ci toll ndax yooyu mi ngi saafaraw waaw boobaak léegi mbir yi mais nag euh, jamono bi ñu ko jàmbatee defe naa ni am na kilifa gu waxoon ak euh, Mansour Faye ak Omar Youm ba mu waroon ñu benn kilifa la jarul may tudd turam waxoon naa ak moom parce que tamit xam na ne li may wax du pour man pour askan wi la mhm. ci côté ndax bu ma nee bay jàmbatu yoon mhm. ngir élèves yi jànge Kayra Mbaye Kayra Ndaw mhm. ba Mayel Land donc ci ay euh, di jaar ci yoon yu garaaw yoo xam ne xale yi bu ñëwee dañuy sonn donc ñu am ay jafe-jafe yoo xam ne maar dem si donc loolu tamit dafa doy waar trop loolu ñëpp ànd ci donc bi mu amee amul dëkk yooyu ku fa nekk rek ngay mag ngay gone rek woo nga Moustapha félicité ko ci defoon naa ne lii moo xawoon baare mais konoon dina am ay ay jéego yu xiir moom parce que parce que parce que kilifa yi yëg nañ ko te réagir te te ñi ngi doon bëgg di réagir mais yàlla def na diggante boobu ak mbas mi jegee loolu mm-hmm. sorewul ndax bi ñu kiwee la Porokhane bi ñu jugee Porokhane gis nga avant ñi préparer Kazu Rajab gi ci la affaire yi di am comme ça noonu. Mhm. léegi dara lépp tagga témbe mhm. mais nag maa ngi am yaakaar ne bu ñu jógee ci lii. saafara dina ci am ndax euh, ñi fi nekk day kilifa di yëngu ci nekk moom euh, d'état yor secteur boobu mhm. yor département yooyu defe naa ne am nañu yaakaar ne li may wax njariñul askan wi la te dinañ ko te dinañ ci taxaw moom bu soobee yàlla parce que tamit euh, dëkk yi moom dëkk yu mérito loolu la fu mel ni Touba Bogo fu mel ni Bakura fu mel ni Njalaxaar guy guy mbaam yooyu yëpp dëkk yooyu xam ne dëkk la yoo xam ni dañoo jàppale président Macky Sall depuis 2012 ba léegi dañ koy jàppale président musu faa mosu faa ñàkk benn carte mhm. kon ku mel noonu bu élection jotee avant 18 mu jox la ay résultats ak Touba ni nit ki mel. damay dégg chaque jour bu ñu demee élection dañuy perte te ñee dañuy gagné vraiment nag bu caagi neen sax dañuy gagné war nañ leen defal mais nag nit ñi bu ñu jegee ci yow li ngay def war nañ sentir sa bopp vraiment ci réew mi moom. te kon est-ce que jot jàppoo ne président war na leen waroon na leen gën a mën a jàppale sax avant mbas mi di jënd ku ne xam na ne mbas mi mën nañ ne daanaka yàggu fi yéen yàgg yi te ñoom mel na ni yoon yooyu ñuy jàmbat doon na loo xamante ni xaw na fa yàgg tuuti. xam nga loolu tamit dëgg la mais président léeg-léeg xëy na président dina bëgg a liggéey mais xëy na dafa am ñu ko jege ñoo xam ne donc seen taxawaay lu yàqal ko rek la ñuy def defaraluñ ko. Mm. ndax bi ma fi defee déclaration wax ci eh, programme bi ci entre diggante Kayre Ndaw Kayre Mbay ak Ndindi Touba Boko pour ñu teli ko sax. raana bi am na ay kilifa yu bëri yoo xam loolu neexu leen kaas gi ma kaas foofu neexu leen parce que li ñu bëgg mooy chaque jour ñu toog ci wetu président président lépp a baax mm. te loolu mooy erreur bi. loolu mooy erreur bi parce que yàkkamte nañ dem pour luñ leen jox wala ñu leen félicitation ñu ne ko président lépp baax. kon nga jàpp ne affaire yi affaire intérêt da cee am. da cee am très bien léegi nag président nag lii lii wax ji mooy ñi ko jegee ku mu mën a doon da ko war a wax li askan wi dund bu dee askan wi la ñor. politique bi ñuy def mooy ku ci ne seetloo def sa poste dem sa yoon dafa mën a ñàkk li ñu war a def mooy jéem di xeexal askan wi. di ko jàppale di xool di xool loo xam ne mooy jëmale réew mi kanam. ñu di ko def parce que président Macky Sall leer na ma nit man xam naa ne bëgg naa liggéey réew mi mais boo bëggee liggéey ñi lay waxal ñi lay conseil wala ñi dend ak yow lu ci ëpp li ñu lay wax ak li askan wi bëgg doon benn tamit lu dafa dafa nekk lu garaaw daal dafa nekk loo xam nga ku dem ba def déclaration. wane di yëgal président ne ko kat diggante bi ak bi taliwuñ ko mu di la metti nga ne mu di la metti ba nga koy kaas kooku boo ne askan wee la ñor sérieusement parler ñorul la nañ waxante dëgg ñorul la parce que bu la ñoroon laataa ko Moustapha di wax da nga koy wax parce que tamit ñiy dëkk ñi nga xam ne dañuy ñibbi Touba Bogo wala ñibbi Daara Bogo wala ñibbi Daara Minam amee dégg ba Daara Minam bi nekk ci ginnaaw Touba Bogo sentir nañu ne foofu métti na trop kooku ku leen kaasal rek yow lañ àndal te dañ leen war a kaasal mooy yoon parce que loolu mooy loolu mooy loolu mooy doxal am réew am réew boo fa nekkee da xool jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund nga di ko wax mais fii la plupart nomination rek ngay dégg nommé wuñ ma nommé wuñ ma nommé wuñ ma nommé wuñ nañ ñu nommé nañ ñu nommé nañ léegi li gën nag mooy bu même bu fekkee ne nomination amul tamit nañuy fexe ba vraiment li askan wi di soxla li askan wi di bëgg ñu di ci taxaw muy jaar yoon Euh, Moustapha en tant que yow nga nekk responsable politique bu APR bu fekkente ne comme yow ni nga ko waxee sànq sa biir wax yow da nekk di jàmbatal askan bi te boo sañoon gox yi nga nekk ak yi nga xamante ni moo leen wan ginnaaw boo sañoon lépp loo xamante ni ñuy jàmbatal rek mu saafara mais bu fekkee dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci côté yi mel ni ñu ñu lay yàqal ci benn côté est-ce que li nga bëgg di nga ko gaaw a am ci diiwaan bi nga xam ne fi nga am mooy kaasal askan wi rek ba ne maa ngi ci maa maa ngi ko ci wax parce que man nit laa koo xam ne li ma gëm laay wax ñoom ñëpp xam nañ ko ci man yàlla mi ñu tiim xam na ne euh, lu dul li askan wi bëgg nekkuma ca képp ku ci koo xam ne yaa ngi gàllankoor ci li ma bëgg te askan wi bëgg ko ma dal sa kaw. Mm-hmm. koo mën a doon parce que man euh, damaa nekk nit koo xam ne nii ñu bëree bëri ñu ma nekkal ci parti APR ñëpp xam nañ ko ci man de dañaa mu Moustapha moom bu la bëggoon a wax dara fa ma la koy wax moom loolu moom aw ma ci kii ak lu sa garaat yéeg lu sa garaat wàcc. duma la ko jëwee dama la koy wax moom nga di ko dégg kon boog li ñu war a def mooy ñun ñëpp pour jàppale président ba bu ñu demaatee yenn élection ndam am nit ñi bëgg ko ni ñi xam lan mooy njariñam dëgg-dëgg nañ fexe ba askan wi lii seen soxla ñu di ci taxaw parce que tey bu mu safaa kaasee fu mel ni tubaab ko foofu noonu donc waa Boukhatoul Moubarak ña fa nekk nañ kaas fu mel ni foofu mu dem da ngay dégg ñu koy kaas mais doo dégg sax ay ay kilifa ay gone ngay dégg léeg ñu ko kaas comme sama genre gi donc doo day am ay kilifa yu mag yoo xam ne du leen ko jaral ñu di ko kaas te loolu mooy yoon am réew boo fa nekkee da ngay xool fa metti fu mel ni musóobee gis nga ña fay ñibbi dafa metti fu mel ni boo doon jëm saam laa jëm ci kaw doy na waar yoonu tundóodi bi dooy na waar ak feneen ak feneen yooyu yëpp noonu dañu war di ko leeral président waruñu toog rek bu màggal ñëwee ñu xool yenn koñ yi dabu daaxe taal yenn làmp yi ne dëkk bi baax na sawa wóoyu ñu def loolu ñu fi nekk da nga xam ne état bi ñoom lay déglu tamit léeg-léeg ci seeni affaire dañ ko war a leeral pour yombalal ñun li ñuy def parce que xamul ne mbooleem lu mu fi deful lekk ci ñun ñii ñun ñi ko fi nekk rek ñun lay compté wu ñun ñi ko am na ñoo xam ne bu ñëwee mën nañ ko mën nañoo indi ab courant wala ñu indi tali dawee ko yóbbu ko feneen foo xam ne moo leen neex foo xam ne xëy na mën na bañ a arrange askan mi mën leen arrangé su boobaa bu ñu demee ba élection ci leen ñu ko nit ñi di fayee parce que loolu lañ leen lebal parce que lebaluñ leen liggéeyal leen dañu leen lebal di leen devi seen i affaire moo tax ñoom seen carte yi léeg-léeg di ko devi di ko yóbbu feneen c'est ça le problème jërëjëf Moustapha ci leeral yu am solo yooyu mais tamit Moustapha en tant que comme ni ñu ko waxee woon sànq responsable politique bu APR waaye tamit fii tey ci diwaanu Ndindi Moustapha ñu xool ne jamono ji ku ne xam na ne mbas mi di coronavirus moo lëmbee àdduna bi en tant que tamit responsable defe naa ne gis nga fi ànd naa fekk euh, Modou Bara Dolly keroog yéen ñëpp defe naa ne ñu bëri couvrir nañ ko ñu ànd bokk sensibiliser wër dëkk bi fu bëree bari dem ci préfet yëpp noonu comme ça préfé préfet def liñ ci war def yooyu yëpp noonu Ndindi tamit ak Touba Bogoog dëkk yëpp noonu donc yaafu suma ci defe naa ne fii yëpp noonu ba ci jàkka yeeg jumaa yeeg marché yeeg yu ci bëree bari foo xam ne fexe nañ ba yóbbu fa eau de javel mm-hmm. bi ak ay yu bëree bëree bëri donc ñu ngi commander ay masques yoo xam ni defe naa dana génn fan yi balaa yàgg pour jàkka yee yi fi nekk ak yooyu ak yenn bërëbu liggéeyukaay yi pour nit ñi mën koo am ak yooyu pour mën a xeex affaire yi mais ñi ngi ci mais nag waaw noonu lañ ci noonu lañ koy xeexee daal ñoo ngi ci di si nit ñi ak yooyu noonu comme ça daal noonu côté bépp. Euh, mu mel nii kon euh, yéen a ngi ji mais tamit bu ñu ñëwee ci wàllu côté bi nga xamante ne mooy côté séddale dund bi ku ne xam na ne bëri na coow ñii di wax naan nañu ko séddalee jaar na yoon ñii di wax naan jaar du yoon mu mel ni coow la cee am ñu yow tamit en tant que responsable APR ban gis-gis nga ci am. xam nga dafa am loo xam ne donc euh, damay njëkk ci ceeb bi fi maire séddale woon ci lu njëkk. Mhm. quartier bi ma dëkk ci Ndindi muy Tawféex 2 Ndindi fukki quartier ak juróom la. Saliou Ngom mooy chef de quartier bi quartier bi li muy rëy rëy rëy nekk na ñeenti téeméeri kër ak lu topp ñeenti saako ceeb a fa dem. quatre saako ceeb moo dem ci quartier bi. dafa am loo xam ne nii après yow boo ne da koy séddale sax defe naa ne dafa am lu bëree bëri lu muy yàq te noonu la lawee nag ci Touba parce que ndindi li muy bëri bëri donc peut-être li fi dem lépp boo xoolee téeméeri saako ceeb la. bu demee ci fukki quartier ak juróom-ñaar xëy na am na ñoom sax mën nañ bañ am loola. nañ ko séddalee lañ joxe moo ndaw. nañ ko jox xëy na parce que chef de village bi Saliou Ngom def na ci acte bu rafet nee na man du ma ko transport sama ko ñu naan nangam. nañ xool ñi ko soxla ñu jël seen i carte ñu dem jëli ko ci eh, eh, bureau chef de village bi yooyu ñu dem jëli ko mu jeex. Mm-hmm. amul problème ci séddale bi. problème bi mooy nit ñi dañ leen a joxul dara. dafa am loo xam ne boo ko dee jéem ñeenti saako ceeb ci quartier boo xam ne quartier bu lëm nga joxe fa ñeenti saako ceeb ak suukar ak dem nañ ko limee noonu dafa dafa garaaw ci kër yoo xam ne ñeenti téeméeri kër ñeenti saako ceeb ku ne boo ko doon bu fekkoon dañ koo séddale nga xam ne quartier bi yëpp war ko am ku ne mënta am xaajaatu genwaar li bar genwaar li euh, xaaju genwaar rek xaajat ci digg bi kenn ku ne mënu ko am mhm. donc kon loolu euh, joxuñu dara askan wi mooy loolu lañ war a bàyyi dañu war a xool ñu manee ñu def ko bu ñu mënul ñu bàyyi parce que xam nga ñeneen ñi ngi koy jox xëy na sax soxla nañ ko kenn du ne mais boo dangay fekk fekk téeméeri ñu ko soxla nga jox ko ñeent ñeneen ñeent ña di ñeewantal toog xëy na am na ñoo xam ne sax bu buñ jegee ñi ngi seetle dagg nañ seen seeni seen jour ay ay fan yu bari. kon daal yow dagguma la mais jàpp nga ne bàyyi woon bàyyi woon ceeb bi moo gën joxe gi nga xamante ne mën nañ ne turu joxe mi ngi fi te joxe ñu ñu dara. parce que ñeenti quartier boo xam ne ñeenti téeméeri kër ñeenti saako ceeb ñeenti saako ceeb ceeb quartier loolu dafa garaaw dafa garaaw garaaw na trop trop trop te loolu donc euh, xëy na turu joxe wi la rek waaye joxe moom nekk fa parce que ñeent saako ceeb du ab joxe nañu waxante dëgg man mi quartier bi ma li ma fi joxe rek ëpp na ñeent saako ceeb ci quartier bi billaay wallaay taala ëpp na ñeent saako ceeb kon maa fi man meer maa fi man ñii doon séddale ceeb maa leen man fii ci dëkk bi dañ xam ko parce que man lu ëpp ñeent saako ceeb dugal naa ko fii yaa may dégg léegi nag kon ba pare ñu ne ceeb bi ceeb bi ba pare ceeb bii di ñëwaat tamit vraiment man yàgg naa ko wax yàgg naa ko def dama xalaatoon ne parce que man opérateur économique laa suñ man laajoon dinaa leen xelal ci ndaka lañ ko war a mën a séddalee ci dëkk bi. parce que tey bu ñu fexewoon woon ba nit ñi ñu yónnee leen ko lu mel ni lu mel ni publicité moom wari Orange Money wala yi fi nekk yëpp ñoom seen. ñu fexe mu envoyé leen ko par xaalis ku ne jëndi. ñi soxla ceeb jëndi ñi soxla kii jëndi am na ñoom lekkuñ macaroni a pat yi en ah, même temps boo xoolee sax boo xoolee sax doguma la mais boo xoolee bu fekkee da dugg ci côté mën nga naa euh, a sensibiliser nit nga xam ne dañ doon bañ mhm. boo xoolee sax côté bi nga xam ne fi nañ ko doon séddalee dafa am dafa am très bien gis nga ba nga xam ne am na commission yoo xam ne commission boo xam ne dégg naa quarantaine nañ leen vraiment man du yéene sama benn mbokk jullit mhm. donc nga nekk leneen sax du la yéene dara lan la waaye vraiment lu mel noonu war nañ ko ci xalaat bu baax a baax comme dañuy tere rassemblement yi ba côté yi dañu wàññi li ciy nekk te mairie boo demee mu fees dell ak ay nit wala man rafetlu ma ko la ñu waroon def mooy xaalis la xaalis la nit ki boo ko joxoon kon transport transporté bi ñu doon def naan dañuy transporté ceeb bi un milliard jël la nangam chauffeur yi nangam du ko am dañuy toog ne kat Modou Bousso war na am cinquante mille francs mais nañ ko ko yónnee dañu war na fexe ci fexe comme dañoo confiner nit ñi donc dañu war na fexe nag ni ah léegi kat lii problème bi mooy nañ fexe ba askan wi jot dara yónnee leen ko ñu jot ko. doguñu la Moustapha mu mel ni waxtu yi daf ñu bëgg a jàtt Moustapha tamit ñu gis ne jamono ji euh, politiciens yi ak pëccëxu a ci am maanaam ak ñàkk juboo ñii aw nii ñii aw nii lan nga jàpp ne mooy sabab bi. fan yi moom defe naa ne politique waruta am moom ba ak juboo di am wala ñàkk am di am lii problème bi kay mooy. corona bi ndaka la def ba ñun ñëpp ñu xeex ko ñu saafara ko ñu jëm ci leneen bu ñu nee ba élection jub wala leen jub nag ñu bokk nag xam nga senegal lii seen problème mooy chaque jour dañuy politique dañu war a liggéey damay toog nit woo ma ne ma gëj naa la gis ma ne ko damaa nekk sama liggéey rek mhm. politique du métier foog ñuy xalaat ne ñun dañu war dem defi leneen bu bu élection jàllee mais bëgg chaque jour ñu nekk ci rajo yi télé yi di wax di politique politique du métier mhm. su élection jotee bañ dem ba war a nit ki nag fa nga nekk da ngay dem liggéey boo gisee ko war a jàppale bu nit xewlee sa koñ nga dem taxawu ko bu màggal xewlee nga dem bu leen xewee nga am boo amee sa alal nga jàppale leen ci te la ngay liggéey bu politique amee ñu xam ne ñii daan nga leen gersu nga dem dagaan leen seen baat su ko defee bu ñu la ko joxee loolu la mais fii Sénégal da ngay gis ne tout le temps ñi ngi politique chaque jour ñi ngi politique suba ngoon bëccëg amu amuluñ ko àpp pour l'instant nag xeex feebar est def loolu dañoo dañoo dañoo exactement lan mooy politique waaw politique moom na dañ ko xamul mais nag moom mooy mbi li nga xam ne tey boo ko doon xool ci politique mooy mm. liggéeyal sam réew la donc fexe ba euh, euh, fa ñuy dë fa ñuy dogale nga am fa baat donc bu la yàlla dogalee nga am fa baat terewul ngay wax ngay ngay soññee ñu lay jàppale ci saw askan. ak interpersonnel yi nga xam ne da cee am sax mën nañu daanaka bokk na ci li nga xam ne day yàq politique. ay interpersonnel rek lañ ci dajale. nga gis koo xam ne ni day def loo xam ne da ngay xam ne carrément lii mu def nii ay interpersonnel rek la parce que loolu mooy problème bi. Touba ak fu baree baree bari gis nga boo gisee yeneen dëkk yi te nañu même sénégalais yi la de même benn benn type benn type sénégalais bi la. boo demoon tey eh, Linguère la fa Aly Ngouille Ndiaye di def yaa may ba tax askan yu boo ne woon Aly Ngouille Ndiaye ñu yenoo yat dàqe la xëy na ñu nekk dëkk bi dañ ko fay defoon buñ ko fi defoon loola fekk leen fi. mais ñëw suñu dernière question rek Moustapha ñu gis ne jamono ji comme ni ñu ko waxee ci mbas mi di Covid 19 nit ñi askan bi sonn nañ ci état d'urgence bi ak li nga xam ne mooy couvre-feu bi yu mel noonu tey président bu fekkoon ne mën nañ ne wax na maanaam ubbi na yoon bi ñëpp kenn ku nekk dem sa foo bëgg a nga dem fa delluwaat sa bërëb liggéeyukaay est-ce que jàppoon loolu tey ji euh, buñ ko defoon dañ jàppale ñu baree bari. loolu la ànd ndax wax naa la ko sama biir wax nee naa la am naa fi ay nit ñoo xam ne ba léegi ñu ngi kon ne sax mel ni du yalwaan nga baal ma ci kàddu gi xëy na du yalwaan borom kër du noonu mm-hmm. parce que dañoo war na dem ba Koungheul wala Kédougou mm-hmm. nekk ci dëkk mënuñoo dem seen place yaa ngi fu ñu tëj. d'accord nga ci dañu war na fexe dañu war na fexe dañu war na fexe nit ñi gën dem jar na sax mm-hmm. masque yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu gën cee taxaw. ba nit ñi kuy génne sa buntu kër ku ne takk masque waxuma la oto waaye lieu public yi yëpp fooy dox rek takk masque yooyu noonu ñu fexe nit ñi dem jar na sax ñu ñu fexe ñi nga xam ne alors dañu bëgg dem donc te am ay place bu ñu leen ko waxoon jaral leen ko ñu toog quarantaine nañ leen xool juróomi teg ñoom ñëpp ku ci dara jotul nga dem ñu yóbbu la ci dëkk ba nga war dem nga dem ñuy xool ñoo ñi ñu ne fi bàyyi nangami jour ñu dundal leen ñu nekk fi ne sama kër am naa fi ñaari xale yoo xam ne ñu ngi bëgg dem ba Fuuta lañ bëgg dem mënuñoo dem ca Kazu Rajab lañ fi ñëwoon ba léegi mënuñoo dem te bari fi bari te loolu moo fi na ci dëkk bi ñoo xam ne alors ñëw nañ tëj seen i am na koo xam ne ni boutique am bërki yu bëri dafa primé parce que tàngoor yu mujj ak lan ngay tàggoo ci bi nga xam ne mooy 24actu ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan jërëjëf euh, soxna Assa di sant waa 24 ak teg ñëpp noonu di sant suma xarit nag wax ah, foog ma sant ak El Hadj Ousseynou ndax suma xarit la di la sant yow it vraiment maa ngi lay suivre bu baax ci lampal FM ak fépp noonu ci sa taxawaay. Eh, xam naa ni dina baax moom incha allah rabbi ñu ngi lay séntu ci télé bu fu mag nga nekk nag waaye ñu ngi lay séntu fu gën a kawe kawe kawe ñu ngi la ciy séntu di ñaanal tamit eh, sumay waajur. di sant suma ñi ma ñi nga xam ne ñooy ànd ak man di ma jàppale ku ni Ibrahima Ndaw suma coordonnateur. Yemou Diop mi jiite jigéen ñi nga xam ne fii ba Touba Bogo Daaru Bogo yëpp moo leen jiite ci ay jigéen di sant tamit euh, Jili Jaw mi jiite suma xale yëpp di leen sant ñoom ñëpp noonu di sant mboolem koo xam ne donc euh, soppee Moustapha nga bu buñ jugee nga jug rek ñoo ngi lay sant bu baax a baax maa ngi leen sant leen gërëm jërëjëf jërëjëf euh, ñi ngi koy euh, sant bu baax di ko gërëm comme ni ñu ko waxee woon sànq rek ci bopp jotaay bi Moustapha Seck Mao nekk responsable politique bu APR waaye tamit féete fii ci nga xamante ne mooy ci diwaanu Ndindi bi ci seen invité de la rédaction tey moo nekkoon suñu gan fii ci biir kër gi di 24 actu koy jaajëfal bu baax ci euh, mën nañ ne yombalal ñi nga xam ne yombalal nañu ko ñi ngi koy jaajëfal bu baax waaye tamit jaajëfal képp ki nga xam ne rek yaa ngi suivre site bi di 24 actu waaye tamit di sant bu baax di jaajëfal suñu caméraman bi di di Diouf nga xam ne mën nañ ne bu émage bi leeree ba ngeen mën ñoo gis moom la ñu ngi koy jaajëfal bu baax di leen joxaat daje beneen émission beneen émission ci invité de la rédaction waaye tamit beneen gan ñu leen di jaajëfal mbokk yi jërë ngeen jëf